bu bëggee jot ci vidéo yu am njariñ yi bàyyi fii ci sama diine TV ñu bind sabonné soo noppee nga daal di bi mooy waral benn njariñ man new ma ci wañaan new ma xaw fu ñuy wañaane damay joxe ay fayda ay njëriñ fayda yoo xam ne benn bu nekk sama bopp waxuma suma bopp wanewuma yàlla ma yàlla musal ci loolu waaye liggéey naa ko ba gis naa njëriñ bi amul tour bu ma leen jox lu dul xam naa kilométrage bi muy daw par minute par seconde nu mu gaawee ban puissance la am kañ la lay wuyoo nu mu lay wuyoo ci ma leen jox waxuma tur yàlla yi nag ci ma leen di jox moo tax ma ne leen tey xef xippi laa leen bëggoon a jox ma ne leen yéen ñëpp xef leen ngeen xef ma ne lamb leen seen poos ngeen gis ko ci waaye nag comme mag ñi tere nañ ma ko naa ko bàyyi rek waaye nag falam maara ay naaxu ngeen bàyyi ci xel hmm? aaya la aaya boo xam ne bépp góor bu lamb wala jigéen bu lamb ah loolu nag dafa bari de ah bu ma ne woon nañ ekkati seen loxo kenn du seen sama bopp <laughs> ah aaya boobu baax na ci mbokk yi mooy falam maara ay naaxu ba mu jeex bu dee jigéen bu bu bu kii bu amul borom kër walla bu toog lu yàgg sëyul dañ koy bind ci limu ñett walla juróom ah? mu sangoo ko ñett fan wala juróomi fan lim koy bu ko bu ko raxasee ba pare day ut ñetti façon parfum yu bokkul mu def ko ci mooy ñetti façon góor yu bokkul ku am alal ku rafet ah ak koo xam ne ku digg doomu la foog mu am ci benn ñetti parfum yooyu loolu lay présenté ku am alal ku digg dóomu walla ku rafet mu def ko ci sangoo ko ñetti fan wala juróomi fan balaa ñu naan semaine delsi na boromam dina dégg alxayru bu dee góor la it hmm? bu dee góor la it daf koy bind ci benn yoon bu ko bindee benn incha allah incha allah bu ko bindee benn yoon wala mu bind ko juróom-ñaari yoon mu def ko noonu mooy moom it noonu lay def mu def ci ñetti façon parfum yu bokkul mooy foog yàlla dajale ko soxna soo xam ne du nekk cas social cas social xam ngeen ah cas social góor ñu bari léegi bugguñu ko. ah ñi ñu bëgg léegi mooy ñoo xam ne am nañ am nañ am nañ barke kon boo ko defee noonu ala kulli xaalin yàlla dajaleel la ci saasi wala ci jamono yi gën a jege ci loo xamante ne mi ngi mel noonu boo bëggee di jot ci vidéo yi am njëriñ yi bàyyikoo fii ci sama diine TV da ngay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njëriñ du raw